je suis élu pour 7 ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. Et cette réforme, qui limitera le nombre de mandats à 2 et la durée à 5 ans, ne pourrait plus faire l'objet de modifications. mandat nañu danaa leen jiite waaye julli bi ñaari rakk la ñu ne ko d'accord nañu xam na ni tabaski ñaari rakk la rakk bu njëkk bi day nekk juróom-ñaari kabar dañu roog nag mandaam bu njëkk bi di juróom-ñaari at rakk ñaareel bi war a nekk juróomi kabar wala mu am mandat ñaareel bi juróomi at waaw bu paree lu mu ci nekk asalaamaaleykum mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de. waaw ma léegi moom nee na du sëlmal nee nañu ko nee nañu ko subhanallah imam mi du dégg imam Subhanallah, mune दुमदे deg तमे कबरा no pura troisième mandat du mën nek comme ha ah président président xoolaatal sa bopp xoolaatal situation bi nga bañ a dégg ñi nga ku dugg ci kàmb ñoo la ci dugal ko mu tangé ñoo ñëk mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de. tant que le président sortant Abdoulaye Wade persiste dans sa volonté de vouloir briguer un troisième mandat bien entendu le pays sera bloqué. mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de. ñu ngi lay nuyu.

ngir ñu jox ko euh, validel ko candidature moom nag yoon ak sàkku réew mi moo ko dàq ci joŋante bi war a am ku waxul waxu nafeq war nga xam ni moom amul droit nekk candidat kon nag bu fekkee conseil constitutionnel bi nga xam ne moo war a nekk le juge des élections xam loolu ba pare teg ci tànkam te moom dafay nekk candidat ñun dañuy dàq loolu te duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg te dàq nañu ko te dañu def suñ kem ngir loolu du fi amee waaye gis nañu aussi que moom njiitu réew mi taxaw na tembe jël ay matukaayam ngir indi doole jaay ko askan yi bi conseil bi wax candidature yi immédiatement nañu gis ay Samba Boy ñenn ñi ñu solo leen tëni ñu sànni ay xeer ci place bi nga xam ne mooy obélisque andi fa situation gêne de de perturbation au même moment police chargée chargée de def ay char à eau tour ndox ndox mu tang manifestation violente nit ñi nous nit nous kon nag mel nañu moom ci doole la teg candidature am ci doole la teg fas yéene foqarti li nga xam ne mooy la ne ñun duñ ko nangu comme moom léegi won nañu démocratie mënul am boo ko waxee waxtaan ak moom mënul adduna bi yëpp wax nañu moom nanguwul kon li ñu defee mooy ñu résister ñi nga xam ne démb barki démb suñu maam yi bi nooteel ñooy taxaw nañu jànkantoonte ak ñooñu doon leen noot tey jii nag kii noot ñun la bokk maanaam en tout cas ñoo bokk muy nit ku ñuul comme ñun di moom fas yéene noot Sénégal ngir toog fi toog fi doomam te dañu ne loolu du fi amee. d'accord may ñaawlu aussi li mu def. ndax waxtu bi may wax ak yow sorewuma place de l'Obélisque ñëw nañu si bërëb bi ma ne police dugg na si kër muy violation de domicile toj ay oto yoo xamante ni samay oto la suñu sécurité amoon ak oto yoo xam ne ay xale ay militant dañoo fi nekk par coup de matraque la ñu tojee vitre yi gaañ leen dóor chauffeur yi waxtu bi may wax ak yéen ñooñu ñu yóbbu nañ leen ci clinique bi nekk yootu place de Louga loolu yëpp dañuy jël Abdoulaye Wade pour personnellement responsable lépp lu ci dal nit te dèjà naqaru nañu deret bi nga xam ne tuur nañu ko ak lépp loo xam ne ëllëg dana nekk conséquence ci position bii mu def moom moo koy yenu moo koy sooge te it lépp d'accord voilà monsieur Sall Macky ma ñaan ñëpp ñu taxaw fas yéene waaw en tout cas résister li nga xam ne mooy taxawaayu nguur gi Macky mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de tey jii noonu lañ taxawee ci conseil constitutionnel ne duñu nangu ñu jalgati charte réew nous lu le président bu def ñaari mandat de constitution de yemale ko Nande ambounia Nous am buña Le mandat si vous bëggee da ngeen koy ñaan ma le jël vous soo leen bëggee waaye si njëkk nag si de. tant que le président sortant Abdoulaye Wad persiste dans sa volonté de vouloir briguer un troisième mandat, bien entendu, le pays sera bloqué.

disons non touche pas à ma constitution non à la troisième candidature oui pour le retrait des décrets portant le découpage d'un certain nombre de collectivités territoriales et enfin allons aux élections dans la paix et dans la stabilité. Bangom, un de mes militants et amis, ainsi qu'un autre Modumbaï qui a été convoqué. On convoque comme ça tous les citoyens sur des bases légères et je trouve que c'est déplorable pour la démocratie sénégalaise. Donc vous n'aviez pas à attendre ces genres de questions face au commissaire non, parce que je ne savais pas de quoi. Il me parlait de documents. De documents, il s'agit d'échanges de lettres où je demandais une audience au président Bongo. Et une deuxième où je lui ai dit que j'avais reçu des informations de l'ambassade, mais j'aurais souhaité de vivre échanger avec lui. Moi, je suis un homme libre, je peux écrire à qui je veux. Je suis un leader politique et je vais écrire encore à d'autres chefs d'État, à d'autres citoyens du monde. Euh, si c'est ça, pour cela qu'on me convoque, convoquera encore. Parce que, euh, comme je l'ai dit, on nous empêche de travailler au Sénégal. J'ai mon cabinet, je vais aller rechercher des marchés dans la sous-région, en Afrique et partout où je pourrais le faire, parce que je dois vivre avec les moyens que de mon travail. Donc, euh, je continuerai à rechercher pour mon cabinet, n'est-ce pas, les, voies et moyens de travailler et d'exister. Aujourd'hui, à deux mois des élections locales, est-ce qu'aujourd'hui, M. Macky Sall n'a pas peur d'être peut-être traîné devant les juridictions encore une fois pour d'autres accusations encore Oui, non, je, n'ai pas peur euh, d'être traîné. Certainement, je serai traîné parce que euh, aujourd'hui, le pouvoir pense qu'il faut m'éliminer. Voilà. L'arrestation serait la, la, la chose la plus faible à laquelle je m'attends. Je m'attends à tout avec ces gens-là. Et je prends mes dispositions, mais que les gens le sachent, ils sont prêts à tout. Alors, par conséquent, étant politique, bien sûr, je suis conscient que si on est dans un pays où la liberté du citoyen n'est pas respectée, où elle peut être bafouée à tout moment, on doit s'attendre à tout. vous, avez, peur pour votre sécurité ah oui, ma sécurité naturellement, mais je prends les dispositions du, citoyen que je peux prendre. Le reste, je laisse ma sécurité entre les mains des mandat euh, des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition euh, pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui sommes arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne peut pas augmenter d'une journée son mandat. Sinon, le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, ben, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui, ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas, se trouver dans une guerre euh, très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité, de, délestage, vous, vous parlez de report d'élection présidentielle. Quoique ça ne pas très sérieux comme. même. j'ai pas compris ministre de l'intérieur taxaw naan dañu génne soldats si génne arme bi da nga maam génne police ak gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañu dem toog ñaxtu kooku dafa nekk lu jégg dayo donc lu ëpp la armée balaa ñu ko génne day fekk situation am dara xewul lu dul dañuy dem toog place leen l'indépendance nga ne na génne armée di armée bi boo ko génne foo ko jëmale si peuple bi boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njekk nag njekk de ba muy wut réew mi réew mi jaxasoo te li ko andi woon moo waral saafara bii may joxe mooy nekkinu njiitu réew si kaw réew mi nan si réew mi nan la koy wutee su ko wutee ba am ban diir la ci war a toog. loolu si deux mille atum deux mille douze. andi woon na jafe-jafe yu bare. dañu boom ay doomu aadama. kon saafara yooyu lañ bëgg andi si li si li ñu taxawal. ak lépp luy dëgëral démocratie. ak andi jàmm si réew. mandat boo leen bëggee dangeen koy ñaan ma leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag. njëkk de. yëkkati. leneen li leen yëkkati. te mu andi coow li. te seet intérêt réew mi. fekkoon ndax njëriñu kese la. ndax njëriñu kese la. nañu mi. ba aar réew mi. képp ku ñu ko dénk. ba képp koo xam ne dénk nañ la ka jaawaleeg ne juróomi at nga am sañ-sañ. nga wane loo man ak loo mane. bu dalee xelu nit ñi. ñu puñaa la bañeen waaye bu jeexee nag amatul lay amatul ñett amatul lenn dem rek bàyyi réew mi wut keneen nee loolu ku ko jox ah, la bëgg réew mi ak démocratie diir bi ni yàlla teg la ci nga yamale ko dox nguur boo ci yàggee bu la yàlla dimbalewul lool da ngay ko tàgg toog sa xel wala sa sago mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne jël leen soo leen bëggee waaye de pourtant mandat wala o ala droit mum dum non so wadi e leydi palaki dum sa renaki gongol koko ko ko ko majjata manda boo leen bëggee da ngeen koy ñaan man ne leen jël len so len beugé way ci ñek nak ñek de na nga gor la la gem lo xam mënuma ko alal jaraluma ko ko jaralon duma ma yegg si nguur jaraluma ko mënuma gënal sama ngor ko am na loo xam ni xel mënu ko waru ko xalaat en tout cas si man politique bi nag jaxasoo na jaxasoo boo xam ne kenn wóolatul kenn waaye nag ña doon gore ñu ngi gore ba léegi loolu aussi ñu xam ko xam nga borof nee bu ree ñu nett li ko ñongal ma dana dégg wolof yooyu xaw ma mu mm-hmm. ko dégg wolof dafa ni gune bu reewee dañuy ñett di ñongal baayam léegi nag yéen a yor seen clavier xool leen li ngeen sentir ngeen commentaire ko si lii lii jarul ma ciy teg dara de xam ngeen jamono yee passé dama doon def ay var yoo xam ne en détail laa ko doon def léegi nag damay def en guro parce que élection yi li si des bareetul li mat a xam yëpp dañ koy xam xamle benn yoon mu féetee boor ñu jàll si leneen lii nag ki ko doon wax ba léegi moom moo fi toogaat léegi nag moom xëy na bu xoolee vidéo bi dina ko wat touti ci ginnaw en tout cas li yeb yaa fi waxoon kenn sosolu la dara li yeb say wax la yow ya ñewat ba 2023 nga nan dañ dañ lay wara neexal pour pour pour mandat bi quoi en tout cas man duma ci aw ma sax lu ma si yow parce que luma la wara wax rek waxal nga ko sa bop lepp lo xamne ne war naa la ko wax yow yow ndafa waxal nga ko sa bop legui nak aduna ngi nonu ñu ngi nonu quoi. fuck you.